DG Sadio Maniang Soumaré bis bi tey ar histoire dina ko bind ndax première édition bu Inakwa Jàppo ñoom ñoo tëgg làmb ji tey fii ci Sadio Maniang Soumaré ci diggante ki nga xam ne mooy Laay Goote ak Daabu Texas arbitre bi mi ngi waaj a soufflé arbitre bi soufflé na ñi ngi dox latéral ñoom ñaar ñoom ñaara ngi dox latéral Daabu Texas dafa waaf laay wàcc na maasoog moom oh laay door ko benn coup coup bu dal ko ah dooraat na ko coup dal ah dafa wàcc nag maa soog moom ndeysaan laabu Mawne Mbaye bay ba ma bàyyi ko ndax mi ngi ci làmb ji ndax doomu ndey mooy bëre ah ña ngay léewtoo ca kaw laay laay wàcc na ba tolloog moom ndeysaan laay ay mbay diggante njool la ak ndaama laay bu Texas ah laay dooraat na beneen. ah ndeysaan Daabu Texas mi ngi jiital tànk ndajoor ngemboo ngembul vert li lay lay goote mi ngi ngemboo ngembul weex jiital tànk ndajoor dafa wàcc nag ba tolloog moom wàcc diggante lay goote ak ki nga xam ni mooy Daabu Texas ñi ngi attention ah daa ngi arrière lay jàpp na ko laay daan na ko laa ilaha illallah lamba ja jeex na lamba ja jeex na lamba ja jeex na daa mel ni lamba ja jeex na ey mbay lii lu mu doon ay lii mu doon Gora Ndiaye lii lu mu doon. est-ce que duñu bëriwaat parce que ah, at que ay lii lu mu doon lii mu doon. daal lu laay moom ndey naa ni. Ah, loolu monde waxoon na ko. ah arbitre bi lu mu naraat. ah danoo fas yéene bërewaat. laay gootee ñi ngi bërewaat ci diggante laay gootee ak daabu Texas. ey mbay ay lii lu doon ci diggante laay gootee ndeysaan ak daabu Texas laay dafa wàcc ba tolloog moom. laay du mi ngi dóor a ndeysaan a daabu Texas dóor na laay reculé ci diggante daabu Texas ak ki nga xam ne mooy laay góote ci Actu TV waa ndeysaan waa lamb ju am solo ngi nii nag lamb ju neex a ngi nii tey ci premier match di drapeau président Idi Thiam lamb ju am solo ey mbay jàppante nañ ca kaw jàppante nañ ca kaw laay goote mi ngi liggéey loolu am na solo lay goote ñoom ñaar jante nan ci diggante lay goote mi ngi rokas mi ngi rokas a ah, daa mi ngi rokas moom tamit ci diggante lay goote ak daa a ah, ma ngay rokas yaa ngay dem lay la laa ña ngi koy rokas ñi ngi koy rokas ñi ngi koy rokas ngi koy rokas bilaay walaay ña ngay rokasante lay goote ak Daabu Texas tey ci dimanche bi nga xam ne mooy premier mars awoxo laay lay la laa laay goote ah laay goote da ko doon xar jéppét waaye xar ba dafa bañ laay goote ma nga ca suuf laay goote laay lay la laa laay lay la laa laa ilaha ay mbay lamb jaa noonu laa ilaha illallah da koo xar ja ilaha ay mbay lamb jaangi noonu laa ilaha illallah da koo xar ja ilaha